amal seen sitting sax nekkoon lu jafe ci ñoom. bu suspendé je ñoom nag doyal nañu sëkk te mënutu ñoo muñ. la yooyu les enseignants nekk di jàngale du tën ci juróom benni at ba léegi mënuñoo fexe ba dugg fonction publique te nag am nañ xayit buy firndal ni que ñoom ay professionnel lañ ñoom nag jamono ji dañoo mer ba futtu te nag ñu ngay woo ministre bi mu jóg si dañoo nekk ay ndaw nekk ay jàngalekat boobu ba léegi ñu nekk dans les salles de di jàngale toog ay at di xaar commission commission bi ñëw ñu am suñu examen professionnel muy CAP depuis benn ñaar ba ñetti at ñoo ngi taxaw di xaar suñu ay euh, li nga xamante ne si mooy euh, kayit bi nga xamante ni mooy fësal ni am nañ suñu examen professionnel boobu noonu muy euh, arrêté. te arrêté boobu noonu tant que amoo ko mënoo dugg dans la fonction publique donc ñoo ngi appelé le ministre de l' éducation nationale plus de responsabilité. ñoo ngay ñaawlu noppi bi nga xamante ne seen syndicat yi noppi nañ ko. li ñuy ñaawlu mooy taxawaayu yenn syndicat yi nga xamante ne si ñoo nekk ci système éducatif sénégalais. parce que ça les honore pas ñu taxaw tey jii ñun ñuy ay ndaw nekk ay jàngalekat ñu war ñoo soutenir war ñoo jàppale ci suñu ay problèmes mais dégguñu kenn wax. bile collectif ñu tuddee ko mon arrêté moom komba ñoom nag lu ñuy xeex rek moo ñu gën a jox enseignants yi seen gëdd les enseignants di woo nguur gi mu jóg si si ni mu gën a gaawee balaa ñuy gën a dëgëral xeex mi.